ñenn ñi dañoo sol seeni t-shirt yu rose di jàllale ay message yu am solo ñii bokk ci bile marche dox nañu ay kilomètres yu bari ci corniche bu Dakar lu ni mel bokk ci octobre rose yamul kese ci exercice physique wante dafay wone doole gi bile communauté am wante itam booloo ngir xeex jàngoroy cancer. message benn la mooy na ñëpp dem dépister wu au moins une fois par an parce que jàngoro bi feebar bi mu ngi fi te euh, voilà lu dëggu la loo xamante ne la kenn xamul naka lay ñëwee donc euh, au moins na ku nekk dem benn yoon ci at bi mu dem dépister wu. bile marche ña ca bokkoon ñu ngi ko jeexale ca cathédrale bu dakaar yegg si nañu fa nag ak mbégte wane ni am nañu ndam ci bile bëccëg. marche bi ñu boole ci octobre rose te ñu ko amal bokk na ci benn groupe bu ñuy wax femme catholique femme de valeur muy firndeel booloo gi nga xamante ne ndaw ñi war nañu ko amal jëm rekk ci indi ab société bu mucc ayib yi lay xeetu initiative doon lu am solo ndaxte dina gën a jëmmal xeexu askan wi. yëg-yëg bi ci li ma ci am mooy lëkkaloo gi dox diggante sport maanaam yëngal sa yaram tuuti. ak euh, li diine wax te niki niki diine suma xel dafa ne yor ci li mu Moussella mi waxoon rawatina ba muy bind benn bataxel chrétien yi waa Corinthe mu ne leen euh, dundu chrétien dafa mel ni dundu sport. suñu kàddu niki jàngu mooy euh, wone suñu coofeel sunu taxawaay ak sunu solidarité jëmale ko ci jigéen yooyu léegi nga xam ne doomu jàngoro bi dab na leen muy. cancer bi laal butitu njurukaay ak buy laal weenu jigéen yi. bile randonnée pédestre ñu ameele ko ci corniche bu Dakar di fàttali askan wi yëpp ngir ñu dugal seen loxo ci xeex lu jëm ci wàllu ko cancer lii di wone itam ne bëggante ngëm-ngëm ak détermination doon na lu am solo ci liy indi ab yokkute ci askan wi rawatina li ñoŋal seen dundin.